ay ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkool waat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité jara di jëm ci làmb rek ni leen ko toppal dinaa leen des ñu dugg ci biir gaañ yi daal di jukki ndaanaan yi indil leen ko imposer leen ko ndax dafay am ay xale yoo xam te ni yaakaar naa ne ay révélation lañ ci làmb waaye am na ci ñoo xam te ni ay ndaanaan lañu ci làmb rawatina tey jëmm ji nga xam ne moom la ñu dalal day ndaanaan ci làmb yàgg door nee naa leen tàkkusaan ku bëreek motloo ci tàkkusaan doy na làmb nee naa muy champion di ndaanaan ñu war ko seet si nag am lu ñu war a waxtaanee lu bare bare bare bare bëri ki ma seet day ndaanaan ki ma seet si day vainqueur di Alioune Seye bu Waalo mu nekk ndaanaan boo xam te ni mi ngi écri Waalo nekk yàgg nag nekk ci làmb yàgg cee def ay jéego yu bare bare bare bare bare bare bëri ñu war a waxtaanee lu bëri Dias maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Makan maa ngi lay delloo ziar di la bëggee. gannaaw baatu onze billahi mina seytaan rajim dañuy sant yàlla julli si yonent bi rek di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabaro borom Daaru Salaam ak gaanu yàgg loo dëgër di ñaan yëpp suñu borom defal leen tawfiix ay taysir defal leen gudd fan bu wér a wér a wér ci barke Seydina Mohamed oyofal yéen bi nga xam ne dañoo feebar tëdd si lalu hôpital yi suñu borom may leen wér ñi nga xam ne dañoo tawat tamit ne ci biir kër yi suñu borom yàlla na fëgg seen boobu ñi caabi féete ginnaaw tamit suñu borom may leen tawfiix ba ñu génnaat ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew te amaguñu këyit yàlla na suñu borom nakaal ñu am ay këyit ñibbi siwaat seen njaboot ñi nga xam ne ñi ngi foofu am këyit tamit yàlla na suñu borom xe bett ak ay xew yu bare bare bare mm-hmm. ñibbi siwaat di siyaar képp koo xam ne yaa ngi si supporté Alioune Seye numéro 2 rek mm-hmm. maa lay jox sa wàccu waay baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf mbokk yi boo leen gisee mu nuyoo rek ngeen xam ne nag mbor mu gën a yaru ci mbëri ci la bokk ndax loolu suñu borom moom moo ko yaral boppam loolu Alioune Seye boo waxee mbaaxam loolu ñëpp la waaye dañuy dugg ci combat dimanche ndax la 14 kanji moo ñu woo fële ca arène nationale ci diggante Fils de Balla ak ki nga xam ne moom moo di Lac Rose ñu ñëw ci combat boobu Fils de Balla Lac Rose noo jàngati combat boobu. waaw Fils de Balla Lac Rose combat bu neexoon la wax dëgg yàlla xas-xas loo nañ avant combat bi. jour combat bu ñu ñëw wane ngor wane jàmbaar ba yàlla tudd tudd loolu dañ koy sant yàlla rek te xam ne basinil ci bëri la bokk waaw bëri moom ñett la sport sax laay wax da ngay gagné wala ñu gagné la wala nga machinil comme loolu la yàlla tombé seen jëmm na dañ koy sant yàlla rek te xam ne sport moom noonu la baaxoo yenn saa da ngay ut ñàkk yenn saa nga ut am yenn saa nga ut yi ngeen tomboo xalaatoon nga ñu machinil non mosuma ko woon xalaat nag bokkut ak li réalité si biir terrain bi. Mhm. ndax ñun lu ñu gëmoon moom mooy li fils de Balla xale la moo gën a féete xale. benn entraîné na mhm. am na doole su mhm. jàppee la da koy daan. waaw ba ñëw ba ci géew gi. affaire yi xam nga demeewul noonu. mais loolu dañ koy sant yàlla rek. te xam ne jaam na ngay bëgg mais yàlla mooy mottali. xëy na loolu loolu la yàlla namm ci jëmmum dañ koy féliciter di ko encourager bu baax a baax di ko wax ne moom yaakaaru géey waaye la yaakaaru làmb ji la kon na gën a góorgóorlu rek waaw di féliciter tamit Lac ban erreur nga jàpp ne moom la Fils de Balla def ba li nga xam ne mu mag si niil ak Lac ci biir bëre bi ci biir xeex bi ban erreur nga jàpp ne moom man du ma jàpp benn la def ndax mooy li ma la wax làmb mag la bokk ndax da ngay gis équipe boo xam ne buy attaqué attaqué sax ba gis ne attaqué bi nii mën nañ ko ca yoxasu dañuy téye équipe bi ñu bañ a bañ a yéegati bëri tamit noonu la sooy attaqué wala ngay def ay action bu mu wër ne tey ji làmb ji nii say action yi mënul ci kii dara da ngay taxaw gérer xëy na lool la loolu la def rek mais loolu ci làmb la bokk waaw loolu ci làmb la bokkoon. ñu bari ne xeex bi la waroon na samp dafa waroon na samp ak jaaga xeex ak la grosse d'accord nga ci xeex bi wala. noo xeex nañ xeex nañ de xeex nañ de dañoo xeex lu ñuy xeex xeex nañ de waaw xeex nañ ba dóorante ku nekk presque am nga fa coup boo xam ne dal na mënoon na la yóbbu teer xeex nañ bëri nañ waaw xeex nañ bëri nañ hmm. mais ñu bari dañoo joxoon ki nga xam ne moom moo di Fils de Balla favori moo tax mu bett ñu bari waaw mooy la wax ñun ñii sax ñun ñii toog ñii même Fils de loolu la gëmoon mais mooy li ma la rek yenn saa li ngay yaakaar ak li am day wute ba tax na kii tamit dañ ko yëpp euh, Lac Rose dañ ko yëpp entraîné tamit ci combat bi ñëw wane jom wane fulla wane ngor xëy na noonu rek la waroon demee ñoom ñaa yëpp yaafu suñu dañoo wane njàmbaar ba machine waaw bu déggee ñenn ñi naan contact bi des na yaram bi état de physique bi contact bi des na. waaw noo xam mooy ni ko Tyson di waxee rek lam moom bu taxawee moom. ku nekk ak sa gis-gis. Ah. waaw ku nekk ak sa gis-gis. mais loolu moom xam nga duñ ci sori quoi na ñoom ñaar yëpp entraîné nañ ñëw nañ loolu la yàlla dogal seen jëm dañ koy dañ koy nangu rek. Hmm. ëllëgu Fils de Balla ci làmb tey adversaire mooy li ma lay wax yaakaaru làmb la Fils de la toll na ni mbëri kenn du doo ñu naan ana mbër mi. bu dëgg yàlla yaakaaru làmb ji la yaakaaru géejawaay la ñu am ci moom yaakaar bu baax a te yaakaar gu ñu am ci moom rek moom bo moom boppam ci boppam am na yaakaar gu gën a kawe googu noonu kon dañ koy ñaanal suñu borom defal ko taw fii rek may ko wér ak gudd fan waaw yàlla lafal ko cet fi mu bëgg mu yegg ci kàttan yàlla dina fa yegg bu dee cër bu dee cër joxe na ko wax dëgg yàlla respecté na ay magam muy changé lépp lu muy changé ni muy doxalee waaw non loolu lu ñu bu amee lu muy changé moom moo aw ma moom man kooku sama rakk la dugg leen loo xam ne wax ma ko bu amee lu muy changé ci kàttanu yàlla man dinaa dinaa ko jël dinaa ko wax ne li ak lii ak lii ak lii ak nii waaw mais du damay toog fii naan ay lii la war a changé nangam nangam mel ni xam mooy loolu te waaw ñoo bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo saa su ne daa war a rafet lépp loo xam ne war naa ko conseil wala ma war ko wax du damay toog fii naan ko fils de Balla lii la war a defe nangam nangam dama koy woon ndànk rakk nii ak nangam nangam cër boobu am naa ko ci man moom na sama numéro yor naa dañuy waxtaan ci lu bare bare bare bu dul sax laam waaw teewaayu Balla ci journée waaw macha allah loolu mu def rek loolu la war a def waaw mooy mooy li may wax rek gis bu coow li ne kur ku ne génn na di wax mm-hmm. buñ ma laajee ma ne leen ñoo bokk suñu ndey ñoo bokk suñu baay mm-hmm. xëy na réeroo mënta ñàkk sëgam ñi nga xamante ni ñoo bokk nday ak baay bokk benn kër wala kilifa yi nekk ci biir kër di jot ay soxnaam wala muy jote ay doomam waxtuma ñi nga xamante ni dañoo bokk fi ñuy gox bi ñuy yeewoo rek te bokk ñu benn néeg bi ñuy tëdd bokkuñu ay jikko ah. il faut yenn saa yenn saa réeroo di am yenn saa il faut ay ay ay ay ay ay ay ay malentendu di am mais bu loolu amee nag nañu delloo si waat xel yi rek te xam ne ñoo bokk loo xam ne mënuñu ba tax na loolu dañ koy rafetlu bu baax teewaayam dañ koy rafetlu di ci am contentement di xam ne loolu rek la war a mu def rek la war a def waaw ndax loo def mu rafet moom soo ko deful woon day ñaaw mm-hmm. waaw loolu moom dañ koy rafetlu bu baax baax a baax di am contentement ci moom. Mm-hmm. Lac dafa bëre ki nga xam ne moom moo di Fils de Balla ci guddi gi rek xel yépp jàpp Alioune Seye ñëpp ne Lac Rose Alioune ñëpp ne Lac Rose Alioune Seye combat la moom ay yoo xam te nag daf leen a boole yaakaar naa ne mu saandooy daf leen a boole du Anta daf leen a boole ñëpp xel yëpp dem ci Alioune Seye Lac Rose Alioune Seye. waaw loolu combat la ko bañ moom mënu ma bañ man moom man bokkuma yeneen mbëri bi nga xam ne dañ naan la adversaire bi ngay ne fii di saafak yi loolu moom moo tardel ñu bëri loolu moo tardel làmb ji ñi war a bëri dañuy bëree mayante xaalis ku mën sa morom duma mais tey da ngay gis kuy saaf ñu naan la yaak Alioune Seye nga naan noo c'est-à-dire xam nga day lii day laa ñu ne la yàgg diw nga neen di di tëgg wëndeel ba dem jër loo xam ne sax war a ko woon jël ñi war a bëri seen biir nañu bëri seen biir rek ñu mayante xaalis xam ne ñoo bokk ndey bokk baay nit ku nekk boo jëlee avance am mooy mooy sa trésor moom moo lay may léew yóbbu sa kër yow nga may ko yóbbu këram ñu war a bëri dañoo a bëri rek ba tax na maag loolu waaw la kon daa naan la gaynde la bañkat la war bi dee pour mu dagg jéng mais su ma jëloo nga xam ne ci bokk safin ah? lii loolu <laughs> tamit dama damay xale yi kenn gëne bu la jëloon nga xamee cin bokkul sa barki maam seera Lac Rose laa wax de mel na doo ma bàyyi nga naan ma Lac Rose ak Lac Bleu yàlla na may tala fekkee rek man doo sa waay du ma fi nekk naan ay Lac Rose ak ay Lac Bleu ak ay diw ak ay daa maa ngi pour le mbër yëpp képp koo xam ne làmb boole na maa moom ci kàttanu yàlla ñu seet sama su raisonnable rek ci kàttanu yàlla mu bëri man aw pare la indilee avance am pare nga pour pare naa alburax le mi ngi seetaan ndax gis nañ ne Balla Gaye yaa ngi la ah. Balla Gaye ak ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine wala Siteu ñu ngi xool mais Alioune Seye Lac Rose loolu boo ko dugalee ci spécial ba oh pop pop pop loolu beneen affaire la. lambaloog bi ah. non lambaloog day rey nit pop pop loolu Alioune Seye njarndeem la de. non loolu njarndeem la mais nañ yónni yàgg rek. Lac Rose ci loxo yàlla na. Fass Waalo. waaw non ay Fass Waalo bu dëgër baa ngi nii de. wow kooku day def waaye ay la grosse moom it. la jàmbaar la gaynde ba pare dafa am xadar. non gaynde moo ko indi fi mu nekk xëy na tardement lam moo ko jàpp sax mu mu kii nii mais Lac 2 waroon na weesu fii waroon na weesu fii maa ngi moo yem rek waroon nañu weesu. mu fit la de. non borom jom la borom jàmbaar la. boromu fit la de bu àddina pour mu dagg jéeg. day wallaahi la azim gaynde la nañ koy nangul weexal sa nawle du tax nga ñuul. loolu lañ ko koy nangul jàmbaar la garmi la génn. dina ndóof nga daan ko. daan ko ale daan ko retour. Mm, mooy yow magan coolee fi nekk rek bu pëndi bu rëy ku ne xam na yaay kan. waaye ay àll la gros boobu tàkku loolu Baye Ndiaye lañ koy bàyyeel ko. ah loolu spécial la. ñu war a bëri daal nañ bëri seen biir. ñu war a bëri nañ bëri seen biir mais di ñod loo xamante ni yegg googu moom. Ah. sa waay da ngay sonal sa bopp rek. même ñi ngi wax Coen sa Aliou Seye doo jot fee doo jot fee moom nee na pare naa promoteur. mooy li ma la wax muy Coen muy Lac Rose muy Amaneex muy euh, Franc ñooñu mënuñoo bañante. ku ci bëriwul ak sa morom da am looy sóor moom wala nga tàppet. loolu moom moo fi nekk. nañ ko waxte dee ñun ñoo ñoo war a bëree suñu biir kenn ko fi taawee nag di di di di kii di di ah, di yóoti ca kaw am nga droit yóoti ca kaw mais ñun ñoo ñoo war a bëree suñu biir Alioune Seye waaw ndax tey jii man su ma neexoon suba suba ma bëreeg Tapha ma ma bëreeg Tapha Tine loolu mooy sama bëgg mais bëgg ko taxul nga am ko mais nañ bëri ñun ñi nga xamante ni ñooñ koo ne combat la ñu ne ah combat la nañ ñu mayante xaalis am déet ah waaw loolu moo taareel affaire yi nag moo tax di nga gis mbër mu toog deux années balance wala trois années balance wala ngay xool lu di lu nooy ba dugg foo xamante ni man su waaye boo fa duggee doo fa gaaw a génn mhm. dañ jëlante suñu biir rek ci fils de balle day yaakaar naa ne lu neex la waaw mais loolu te daanoo fils de balle da nga am maxinil ak moom boo amee Alioune Seye moom jaaroo yow sa waay lamb ji déggool ma la wax tëgg wëndeelee fi bari rek mais ku ne xam ne kan mooy kan. mais est-ce que du gars yi kii bi lañ la loxo bi. non lii loxo nit la rek du loxo. jinn du loxo malaaka. Ah, du loxo malaaka ñi ko yéen ñëpp day waxatuñu ko seen làmb daa yàqu. loolu tombé la rek. tombé la ak lu ñu liggéey ak lu ñu liggéey nga teg la ko trois. waaw non tombé la rek barke Sëñ Fallu wallaay la azim mais yow da ngay gis nit boo xam ne day dox fii rek dajeeg nit rek xeex ak moom dóor ko mu wàcc te du préparé du def dara loolu tombé la rek ay dóor mu daanu. mais trois personnes nga préparé ko. Hmm. ñu tegale ko. man de ki ci topp laay xalaat sax laay wax. ki ci topp ah Lagros daa la fi nekk. te yàgg Lagros moom amateur yi ñoo ko bëgg dafay combat boo xam te ni combat jànq la nañ. na ñëw ñu bëre rek man moom ba sa waaj. ça bu baax la ñoom ñu la. dégg nga caat bu waal nee na Coins ak Franc yéen de avance Lagros su ma woo leen koo bañ. ça va Ali Seye Franc. ma kat Franc day de. dégg nga la man man man kenn du ma ruube ci laam. li dañoo damaa mën li ñu mën ba mun ñoom lu ñu mënul. waaw voilà lan nga mën lu ñoom lu dafa bari loolu pour man la wallahi la azim. kon sa diggante ak bu taxawoon nii. mooy dama bàyyi franc mbëru mbapat la déjà. wallahi daw sama yaram maa ko njëkk a nekk mbëru mbapat fuuf c'est ñoom fi ñu tombé la rek bi ñuy bëri mbapat caméra yu bëri xam nga affaire yi gaaw a kii mais ñun bi ñuy bëri mbapat mooy loolu déggul ma la wax laamu ji bay bay la fi nekk ak ajal rek. kon yow mu leen lu France ma kay jëndee mu xam sanga naa ma fii la xari jaar barki Cheikh Rabaay Baay Faal du ragalu loolu de makan ci la lañ may xam wallahi la azim dinañ ma gën a xam nañ ma sax mais dinañ ma gën a xam waaw dafa mu ne nii te fu ne làmb fawatuma ci reewatuma ci sama morom da am lu ma bëgg te sama morom yi fi ñuy yegg fa laa bëgg a yegg ci mos na yaafus nag ci làmb de waaye déggoolu ma la su ma ñëwee mooy bëri day neex su ma xeexee mu neex li muy am ci defet li muy néew néew néew néew néew ci defet même boo koy daan sax day wane ji xaat sa nag Moussa Ndoye ba doo ma bàyyi ku bëri 22 combat xam 23 combat am ci am ci vingt euh, seize xaw ma dix huit victoire boo xoolee ay six six défaites la am wala loolu sa waay palmarès gën a koo risque waaye yow ma bàyyi de ma la na gars yi ñëw ñu bëri rek te daan daan ay Modou Lo te ku ci nekk bi mu lay boobu nu mu demee la woon rek <laughs> mais nañu yónni yàgg na nga demaat ci làmb bu bëri waat ak Modou Lo barki a Rafal sama gëm-gëm moo ma bàyyi fii ba léegi sa waay bi muy gën a tar may def deux années balance damaa dem Italie jamono jooju su ma neexoon ma jaar foofu comme ni sama Modou Modou ji am na suñoo xam ne ay avance jàmbu lañ tawee mais man damaa dem sama propre may dem gëm ni ma damaa am cër ci làmb ji moo tax ma ñëwaat ndax nit da ngay gëm sa bopp balaa laa kenn gëm maa njëkk gëm sama bopp képp balaa laa kenn gëm moo xool euh, mat na léegi ay trois ans quatre ans. dem ko rek ñibbisiwaat dem rek ñibbisiwaat billaay su ma nee woo ma jaar noonu dem Modou Modou. nga dem sax toog de nee te boobaa tamit day yell. ndax boobu maa ngi nekk ci làmb ji def nii ma toog deux années balance deux ans bëriwuma bi da nga gëm ne fi nekk ci làmb barki maam Cheikh Fall ëppale wuñ ma dara dàqu ñu ma bëri dàqu ñu ma xeex ëpp ñu ma mbooloo voilà kon nañ ñëw ñu bëri rek wala bombardier maye chance waaye loolu day gën a neexate rek moo tax say bombardier lu jaadu la de waaye yow loolu bombardier rek pare na pour may booy chance déggoo li ma la moom moom moom su ko waxee mën na koo def ndax moom jantal grand la ñu ngi koy nuyu au passage suñ ko waxee nag nañ jàpp ne dañ koy baab ak yooyu noonu mhm. mais moom jantal grand la waaw moom suñu mayee chance dañ koy jël ak xol bu sedd guy mhm. waaw mhm. ëllëgu géejawaay ci làmb mu bari ay tanoor bari ay espoir yoo xam ne ñu ngi ci làmb tey bari na ay ah, booy cité yu moom naa ci tudd ñu bare bare bare bari ñu ngi ci di wane bàyyi ci làmb tey ëllëgu géejawaay ci làmb waaw ëllëgu géejawaay di am yaakaar bu baax a baax rek di ñaan yàlla musul ci seytaane rek bañ ñoo jaxase ñu bokk ndey bokk baay xam li ñu bëgg rek xam nga ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom bu ko defee xam nga ñu ñu rafetal soobe rek dugg ci marché bi ndax mooy comme li may wax rek tey boo demoon ba mba bu nit fii ci géejawaay am victoire soo rombee dinañ la félicitation maaju maaju moo doon bëri ndam na ndam su dee defet tamit dañ naa la décourage ndax diw moo doon bëri am na defet kon yow loolu kenn mënu la génnee ci géejawaay bu fekkee da nga am xoolu iñaan na wala nit di bëri ngay siisoog wala nangam nangam loolu yaa fa jaay paañ te loolu warul nekk ñi bokk daal dañuy fexe ànd ànd bu rafet di ñaan yàlla yàlla sàmmal ñu boppam rek làq ñu fi làq yeggul yàq àggul te xam ne niir ñu ngi fi ëllëgu ëllëgu géej waaye daal am nañ ci bu baax a baax a baax ay roi waaw mooy li ma wax rek bokk ndey bokk baay bi rek li na yéene sa bopp nga yéene ko sa moom ndax fii moom boo fi jiwee kaani kaani nga am mais boo fi jiwee leneen tamit leneen ngay am waaw fii kenn mënul nax kenn waaw diggante Alioune Seye ak mbaru Guédiawaye waaw loolu loolu ànd mooy comme li wax rek li nga yéene sa bopp nga yéene ko say sa sa sa morom rek. waaw nga jox xale li mu moom cëram jox mag li mu moom cëram rek bañ a xeebal kenn bésam. lit lu mu nekk nga nekkale ko ci rek wala nga gën ko koy bëggale rek. loolu kese la. damay gis mbër yëpp di la gërëm Alioune Seye sama papa la ñi naan say ku ci mel ay maa ngi dégg naan doomu Alioune mooy bëree maanaam cër bi la booy jox lan la. loolu mooy li ma la wax rek cër bi ngay joxe moom lañ lay delloowaat rek ndax fii moom loo fi leb rek loolu lañ lay fay nit ñi kenn moomu leen soo leen lebelee lu baax lu baax lañ lay delloo soo leen lebelee leneen tamit loolu rek lañ lay delloo ba mm-hmm. tax na jàmm laa séq ak ñoom teranga laa séq ak ñoom baax laa séq ak ñoom moo tax loolu ak lañ ma mën a delloo di kontaan ci waa géejawaay yëpp nag cat ba cat mm-hmm. ikiri yi nekk géejawaay yëpp waaw ñooñu man noonu laa aw ma fi sens interdit aw ma fi ci ngemb mën naa dem ba dugg sa rondal te coow di jib day xam ne kii di kii dugg fii nii moomu sax a gën a bëgg man ndam li li may li may saaku kon nit da ngay jub da ngay dëggal loolu moom moo may loolu ma kon dañ koy sant yàlla baax baax baax waaw dégg nga làmb yi di wax Alioune Seye safar see des du tàngal du simbu yooyu noonu tax gars yi waaw nit ku nekk ni la yàlla tëral nit ku nekk ni la yàlla bind tey man su ma bëggoon a cëfar cëfar sax man mën naa def la ëpp ndax nit ku nekk day am loo xam ne loolu la la yàlla cëral loolu la ma yàlla dama koy nangu mais ñàkk safara ñàkk safara gi bi géew bokk ci biir géew moom bokk ci biir arène ba bokk ci <laughs> maam yaakiri wax yee ko bi mbëri def soo man sama mbër di nga ne mbër mi ñëw na <laughs> su ma waaw damay fecc lu neex damay ñëw damay ñëw damay ñëw bëri damay xeex damay bëri yenn saa gars yi tooñ ma sax ne ma yow yaru gi ngay kii yeeg yow si biir géew bokk ci ma ne leen làmb noonu la da ngay gis ñoo xam ne ay simbakat lañ nag ci tuus bi buñ duggee biir géew nag mel neneen te man néew ma ci yooyu ana lan ngay tàggoo kàddu gu mujj ak lan ngay wax waaw di sant di gërëm rek di sant waa écurie Waalo gi yëpp waaw rawatina waa géej waaye tamit di sant booy ne ci équipe bi yëpp wax dëgg yàlla saa yi su ma jógee ñu jóg di ma dooleel subaa ngoon guddeeg bëccëg di ma yéene xam ne loo xam ne yéene wuñ ma ko sax yéene ko yéene ko seen bopp kon maa ngi sant ñëpp su ma limee rek damay juum di sant waa de famille bi yëpp di sant samay doom baay di sant ñi nga xamante ni ñooy jàpp sama combat su ma amee combat su ma amul combat yëpp ñoo ciy sonn ku ci mel ni Laay Diouf Sil Diène Lamine Bitey Kassi Alamda xam nga Baye Góor di Maguette Mbaye sama président fan si club bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek ndax lim dafa metti met mhm. Aly Kane maa ngi koy sant Mouhamadou mhm. xam nga ak euh, euh, Modou Modou Modou Gueye mhm. Modou Modou Gueye euh, maire Pikine ñu koy sant bu baax bay di ba di sant Fouta Kosam xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp. looy wax la Lac Rose ak Baye Ndiaye ñooñu combat boobu daa war a neex ci Balla Gaye 2 ak tafaatin bu fekkee taxaw man du ma wax Lac Rose man Lac Rose laa bëgg man wax Lac Rose combat jànq la Franc la du ma wax Lac Rose du bu dëgër baa ngi nii wow kongu day def effet bu dëgër baa ngi mbër yëpp nag waaw jërë ngeen jëf Adama Jara jërëjëf jërëjëf jërëjëf non